بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجلين دي دلال جم ci suñu keppaarug ramadaanu tey jii di fukkeelu fan ci weeru koor di suñu fukkeelu daje it ci ngi lii nga xam ne nii dëppee nañ ko sous l'ombre du ramadan bokk julit démb day ñi ngi doon waxee soppe ba ñi ngi doon waxee soppeb yàlla bu màgg ba di soppeb jaam ya ko wéetal ñu ngi doon waxee royukaay bu mag ba ñu ngi doon waxee ki ëpp njëriñ ci ku yàlla masa tegal ay tànkam ci kaw suuf doonte ne ni lañu waxoon ca moom mooy rekk liñ ne luñ mën tëjël léppam duñ ca bàyyi lañ ca man waaye ay dimension am romb na fuuf sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si bisub tey bii nag ñu nag bëgg a dellusi ak yéen waaw yonent boobu moom noon la meloon noon la taxawe woon waaw ñun ñii nga xam ne nag yàlla da ko yónni ci ñun waaw ñun lan mooy suñu warugar ndax kat suñu boroom subhanahu wa taala mu ne fala nasalanna lazina ursila ilayhim wala nasalanna al mursalin ñii nga xam ne dama yónni ci ñoom ay yonent mboole seen danaa leen laaj mboolem ñi ma yónni woon it danaa leen laaj mbokk yàlla la muy laaj ñam yónni ay yonent mooy ndax gëmoon nañ yonenti ba ndax dëggaloon nañ ko ndax toppoon nañ ko yonentee moom la leen di yàlla di laaj mooy ndax leeraloon nañ nit ñi la yàlla bëgg ñu jaamoo ko ko moom lay borom bi di wax ne wa ma ala rasuli illa al balaax yonenti moom dara waru ko lu dul mu daldi jottali la nga xamee ni nii moom mooy ak jottali su ko defee mbokkoo dig boobu ñu yàlla dikk nee na danañu laaj kan lay laaj mooy man mii di wax ak yéen di imam Hassan Sarr yow mii may déglu di Fatima Thiam yow moomu di Moor Saw wala Muudu Njaay amul kenn ci ñun lu dul bis bu la say mbokk takkee ba dugal la ci biir bàmmeel suul la fa bàyyi la fa yow kot bay dem avant ñuy génn armeel ya suñu borom yàlla dana la delloo sa ruux dana xefeet yow ay malaaka ñëw toogal la malaaka yoo xam ne seen melokaan jéggi na dayoo ci ñàngaay yow mi toppoon ba ñuy wax malaaka yi xam nga li ma wax ci ñooñu muy nakiir ak munkar ñu yor ay bolde yoo xam ni rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na mbooloo ci nit ñi bu ñu daje woon mënuñu ko yëkkati ñu yor ci ñoom ku nekk ab bolde tiim la buñ la tiimee daañ la laaj ay laaj laaj yooyee waxoon nañ leen ko ca ba ñuy wax suñu digganteeg malaaka ya doonte ne xamal ni mooy daañ la laaj kan moo nekkoon sa boroom kan moo ci ban diine nga nekkoon la nga xam ne nag mooy laaj bu mujj ba mooy man na bii ko yow kan mooy sab yonent su ko defee mbokk jullit doomu aadama bi mi ngi tontoo keroog ca nam doon dundi ci kaw suuf ci rapport bi mu amoon ak yàlla rapport bi mu amoon ak diine yàlla ak rapport ba mu amanteeg yonent yàlla su ko defee ab yonent ab ab jullit moom day daal di wax ni kooku day mooy yonenti yàlla muhammad di jaamu yàlla kon moom musul bokk ci ñuy jaamu muhammad waaye di yonenti yàlla mooy gëmoon ne ni ni ni muy jaamoo yàlla waru koo jële ci kenn ku dul yonent yàlla ba loolu nag mbokkoo la nga xam ne nii moom moo lay koy may mooy nga xam jiitu ngay dugg bàmmeel ne suñu borom yàlla dafa wax ak ñun ne man yuti ir rasula faqad ata allah képp koo xam ne topp na yonent yàlla kooku day mooy ka nga xam ne mooy ki topp yàlla kon yàlla moo ñu ko joxoñ ne lépp lu mu digle maa ko digle lépp lu mu tere man maay ka nga xam ne maa ko tere looloo tax jéego bi jëkk yow jullit bi mooy taatu nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ma amara mooy lu yonent bi digle defal mi ngi noonu lépp lum digle na doon xam nga na doon xamoo suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne wa ma kaani li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyaratu min amrihim wa man yasi allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina yeyul ci benn julit mu yëg ne yàlla dogal na yonent yàlla dogal na muy am nag loo xam ne da koy tànn moom ci ay mbiram ndax boo jéemee tànn ba mooy yàlla ak yeneen tam day xamal ne yow réer nga réer goo xam ne réer gu sori la moo tax nga la wayu julit diine yàlla ji lan moo ci sa warugar sami'na wa ata'na ay yow faccaam ba nga juddoo ba tey daawoo muuru waaye nga dégg ñu ne la ah alquran ji yonent yàlla muhammad indi woon mu jóge ci boroomam day suñu boroom ma nga cay wax ne ey yow yonent bi waxal sa doom yi sa soxna yi ak mboolem jigéeni jullit ne nañuy muuru bis na ki tey ngay daldi commencé ne dootuma génn sama kër mukk ca muurootuma nga dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sa loxo bii day nga teg ko ci loxo góor bu la daganul wala yow Moodu Njaay sa loxo bii nga teg ko ci loxo jigéen bu la daganul ñu jàppoon la jël benn pont daaj ko sa bopp ba mu yegg day la ca nekk ci musiba loolu moo gën a woyof lii nga ne ah kon day bis nekk tey laa gëj a jox sama loxo jigéen ñu xamal na lépp loo xam ne nii dafa aju ci comportement yonent bi nee na góor ñu bàyyi leen seeni sikkim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiiñ ña nga xame ne nii ak naafiq la ña ñuy nodd ca jàkk yee ca duñu dem ala kulli xaal suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne fala wa rabbika laa yuminuun xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum thumma laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimu taslima mu ne xam leen ni ñii woote ni ay jullit lañu fu ñu toll ñi ngi wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah buñ tuddee yonent bi ñu fekk fettaxu mu ne loolu taxul ñu gëm suñu borom mu ne maa ngi waat ci sa borom yow yonent bi na gëmuñu kan la gëm nga di mat mooy lépp loo xam ne nii lu juuyoo la seen diggante ñu xool lan la ca sunna wax ñu jëfe ko loolee ca wàllu miraas ba la wàllu commerce ba la wàllu biir kër ga ca sëy ba la wàllu lum mën a doon julit lépp loo xam ne da cay jëfandikoo la nga xam ne moom la sunna digle lool dong lay def boo boobaa ngay doog a nag sa laa ilaha illallah muhammadu rasulullah doog a valable ngay doog a bokk ci ñi nga xam ne ni dañoo gëm gaa yi kay leen ñu dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu daan wax daana wax ne kullu ummati yadxuluuna aljannata illa man aba mboolem sama xeet day àjjana lañ jëm xanaa lu dul koo xam ne daa bañ qaalu yaa rasulallah wa man yaba wa yu mu yàlla yónni ana kan la ñuy wax kaay àjjanaa ngi dugg ba pare mu ne maa bañ yonent bi alei salatu wasalaam ne qaala man ataani daxala aljanna képp ku ma topp dana dugg àjjana wa man asaani faqad aba koo xam ne mooy na ma nag kookee da ngay gis ne mooy ka nga xam ne mooy ka lànk ñu ne ko bunt àjjanaa ngi nii mu daa ji ne man maa lànk dugguma loolu kon mbokk mi ngi noonu képp koo xamee ni nii wax na laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kooku day am na caabi aljanna ñu ne ko bunt yee ngi nii kay dugg waaye naka lay def ba dugg fa nag na muy def ma dugg fa jéego yi muy jéego ba tabbi bunt aljanna mooy day topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu saxee ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah téeméeri yoon bés bu nekk waaye toppul yonent yàlla boobe mooy ka nga xam ne ubbil nañ ko buntu àjjana yi na ko kaay dugg mu toog fa mu toog lànk ba ñu dugg nii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leere lañu la nga xam ne mooy digganteem ak jaami yàlla yi lii it mbokku mbir la boo xam ni dana la ubbil yow jullit beneen bunt bunt boobu mooy lan mooy a mankat sama wàllu diini dama ko war a dëppaleeg ndigali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye man xawma suñu borom yàlla ne la fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun dem leen laaj ñi ma may xam-xam su dee ne xamoo leen ngalla waay yow jullit moytul judd gis nit ñi daje ca jàkk yi julli ak daje ca kër yi julli nga xëy rek yow it di këpp këppi ca fekk ne jëkkoo laaj waaw julli moom nu ñu koy defe kii rukkoo moom lu muy wax kii toog di taaye moom lu muy wax lan mooy charte ya koy jiitu ba tax mu wér yii yépp mbokk jullit da ngay xam ni bokk na ci topp ndigali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy laaj ña nga xam ni ñoo gàddu sunnaam gannaaw ba ndax al anbiya warasatul al ulama warasatul anbiya ñi fi wuute yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy boroom xam-xam yooyee nga xam ni yonent bi keroog ba mu taxawee sahaaba ya di tàggatoo ak ñoom ne leen ndax diina ji mat na dégg ngeen ko jottali naa ko sahaaba yi yépp seedeel ko seede nañ ñi qad ballaxta risaala wa adayta al amaana wa nasaxta al umma wa jahadta fi llahi xaq jihaadi ahaka yonent yàlla bi seede nañ ne jot li nga la la yàlla yónni woon koolu tega matale nga ko joxe ko lay nga biir xeet bi jihaat nga dëgg-dëgg jihaat it ngir kàddug yàlla yegg sa kemtalal kattan mu ne waaw kon nag mi ngi noonu waaye comme sama dund daa am fu mu yem fal yuballighi shahidi minhumul ghaib ngal la waay ki dëgg sama wax na jottali ku déggul mi ngi noonu kon it noonu lay continuer yow mi dem ca jàkka ja dégg fa sunna yonent bi alayhi salaam jottali ko ka nekkoon ca marché ba yow mi ko dégg ca marché ba demal jottali ko ka nekk ci bureau ba ay ku nekk dafa war jottali sunna yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam waaye ku nekk it dafa war a sol dallam laaji sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax mbokk référence diine nekk lan alquranul karim sunna yonent bi nga xam ne moo ko doon leeral waaye it léeg-léeg dana am ay mbir yuy lënt alxuraan ba muy wàcc xewul sunna ba muy wàcc xewul su boobaa boroom xam-xam yooyee nga xam ne nii yàlla mayoon na leen ñoom ñu comprendre alxuraan ak sunna ñoom lañuy ñaan ñu def li ñuy tuddee alqiyaas te mooy comparaison diggante lu bees lii xew tey ak la nga xam ne xewul woon démb mi ngi noonu mi ngi mel ni produit yi nga xam ne danga koy diwoo daa di xees pecc wala daa di leer safaanoo ak say frère ya nga xam ne yéen a bokk ñuul yooyee xewoon na jamono yonent bi alayhi salaam dañ naan déedéet waaye boroom xam-xam yi bi ñu ko saytee ñu ne ah yonent bi day ba muy dund am na ñu daan jamu seen tuñ di changer couleur ba yonent bi alayhi salaam rëbb leen kon negam ka changé couleuru tuñam kese la yonent bi rëbb ka changé couleuru yaramam yépp nag ku mel noonu moom waxi noppi ca loolu it la seytaane waxoon fala amurannahum fala yughayyiranna xalqallah ay yàlla dinaa leen topp bañ changé bind gi ngi leen bind ca yàlla moo ñu bind ixtilaafu alsinatikum wa alwaanikum borom bi nee na ci samay kawtéef bokk na ci seeni ju wuute yi nga xam ne wuute nañ ko ci melokaan yi ñee ñuul ñee xees ñee jaune ila axiri loolu mbokk kon benn misaal la boo xam ne na am am na yoo xam ne dañ naan yonent bi day waxu ca waaye boroom xam-xam yi xam sunna heure buñ ca dëppoo ñu tudde ko al ijma ne nangam bi dafa xaraam daganatul benn jullit mu koy jëfandikoo mi ngi mel ne mbokk cigarette lii di taba bi mu commencé tasaaroo ci àdduna bi seetu dix-septième siècle fekk yonent bi jóge na fi lu ëpp mille ans waaye boroom xam-xam yi bañ demee ba gis conséquence su cigarette dama jël lekk kay tux waaye ci environnement bi ak la muy reyaate ba la ma ci mujj dugg dégg ci ay chiffres dana rey plus de cinq millions dans le monde boroom xam-xami ahlu sunna yi tey yépp dëppoo nañ ñi cigarette boobee dafa doon lu xaraam na am mbokk kon nañuy toppee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy noonu topp ko ci texte yi ñëw ci alxuraan texte yi ñëw ci sunna waaye it dëppoo ga nga xam ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ko ci lépp loo xam ne xew na gannaawam loolee jullit dafa war a bàyyi xel ci loolu mbokk gannaaw bañ leen waxee la nga xam ne mooy waru gar bu jëkk suñu digganteeg yonent yàlla bi ca mooy ndigalam yépp ñu def ngal la waaye bokk na ci it tasdiquhu fi ma axbara yonent bi lu mu wax dañ koo war a gëm wax nañu sànq nit ki buñ ko dugalee bàmmeel naka lay dunde ci biir bàmmeelam loolee mbokk dañ koo war a gëm danaa la ci dollil rekk ne tey jii li ñu miin ci goxi suuf rawatine ci suñu réew mooy bu ñu sulee nit ki ñu daldi koy tiim nañ jàng nangami lixlaas nangami isaja nangami ila axiri mbokk loolu nañ xam ne yonent bi daawul doxale noonu yonent bi da daan wax ne seen mbokk bi day suul nañ ko ñaanal leen yàlla saxal aw làmmiñam ndax léegi ñu laaj ko mbooloo ma fa toog yépp daa di ne allahuma xfir lahu allahuma sabbithu ay yàlla yàlla na nga ko jéggal ay yàlla yàlla na nga ko saxal ndax kat yonent bi alayhi salaam béggal nañu ne suñ ko saxalee yàlla dana koy ubbil bàmmeel ba mu nekk jardin bu rafet ci jardin àjjana yi xetu àjjana gi di di ko dikkal jëfam ja yàlla soppi ko jëmm ju taaru mu nekk foofu di ko wittali loolee mbokk da ngay gis dañ ko war a gëm comme niñ gëmee it ne kee ñi nga xam ne deene nekk ca barzaq waaye ak a neexoon ay mbokkam tabaxal ko benn kees goo xam ne or la nga xam ne ma nga toog ci biir ak i kostimam mbokk loolu du tey mi ngi dund mbugal mu tar ci digganteem ak boroomam loolu dañ ko war a gëm allaaxira am na dañ ko war a gëm lam ñu wax ca li fi jiiti woon ci ay yonent dañ ko war a gëm képp koo xam ne weddi na benn xabaar ci xabaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ki weddi woon lépp lu mu indi ñoo yem moom la borom bi di wax naan afa tuminuuna bi baadi alkitab wa takfuruuna bi baad fa ma jazaau man yafalu zalika minkum illa xizyun fi lxayaati dunya wa yowma alqiyamati yuradduuna ila ashadi alazab ama ndax da ngeen di gëm nag lenn ci lu téere bi wax am leneen lu ngeen cay weddi nekkul payu koy def loolu ci yéen lu dul mbugal mu tar ak toroxtaange ci àdduna àllaaxira ñu yóbbu ko ca fa gën a tar ca la nga xam ne mooy mbugal ñu ngi ñaan yal na yàlla musal ñu ci loolu yenent boobu moom dong moo am droit wax xaybu la nga xam ne day ñëw ëllëg yowmal qiyaama abu bakar amu ci woon sañ-sañ ndax xamu ci woon dara omar naka noonu ali naka noonu yonent boobu nga xam ne nag suñu borom nee na wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa yonent du wax mukk ci bànneexu bakkanam amul lu muy wax lu dul yàlla ne ko waxal lii mu dog koo wax bal suñu borom wàcc na ci téeréem bu tedd ba ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين borom bi nee na yonent yàlla bi bu ma waxaloon loo xam ne santuma ko danaa ko jàpp-jàppin bu tar dagg buumu xolam ca kenn ci yéen du mën a dox suma digganteeg moom loolu it mbokk julit léeg-léeg nga dégg ñu naan allaaxira sëñ diw nii sëñ diw naa mbokk loolu suñuy wax rekk la allaaxira la fay xew bàmmeel la fay xew ci làmmiñu kenn dong ci jaamu yàlla yi la war a génne muy suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yonent yàlla boobe it suñu ñetteelu taxawaay diggante ak moom mooy ijtinaabu ma naha anhu mooy moytu lépp loo xam ne yonent bi da koo tere yonent bi la gën a màggalam tere mooy shirku billah bokkaale ak borom bi subhanahu wa taala ndax bokkaale mooy la nga xam ne képp koo xam ne nekk na ci yow sa mboole mi jëf yàlla subhanahu wa taala dootu la ko nangul lu dul ne danga tuub tuub gu sell bokkaale boobee bis boo ko defee moom yàlla bool la bokkaale ga gannaaw ba nag doog laa nangul la nga xam ne muy say jëf bokkaale googee ñaari façon bokkaale la mooy utal yàlla moroom ñaareel bi mooy li ñuy tudde ngistal di jaamu yàlla fekk ne la la ci yóbbu rekk mooy nit ñi gërëm la fonk la tagg la loolee képp ku ko def suñu borom nee na maa gën a woomle képp kuñ may booleel moom la yonent bi alayhi salaam doon wax naan li ma gën a ragal ci xeet bi mooy loolu mooy li ñuy tudde shirkul xafi mooy bokkaale goo xam ne kenn xamu ko ndax yow ca jàkk yi lañ lay gis ca màkk ga lañ lay gis kenn mësulaa gis ci xërëm kenn mësul dégg ngay wax waxi shirk waaye nag intérieurement moom sa biir xol moom lépp la ngay def nit ñee tax nga di ko def moom tax ñu tudde ko bokkaale gu nëbbu ga loolu kon ku nekk war a góorgóorlu war koo moytu wala wala waaye war a góorgóorlu ñaan yàlla subhanahu wa taala musal ko ci comme naka yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon musloo doon sant saxaabatul kiraamin ñu muslu ca mbokk gannaaw loolu xamal ni yonent bi tere nañu bakkaar yi gën a mag bakkaar yooyee ñu tudde ko ay kabaa'ir yàlla subhanahu wa taala mën na def balaa keppaari weeru koor gee jeex bunt yooyu yépp ñu am ci bis buñ ko jagleel waaye itamit ngal la way jullit am na lu ñuy tuddee ay bakkaar yu ndaw waaye bàkkaar yi ndaw yooyee ngal la waaye bu ko topp ba mu alag la yonent bi alayhi salaam joxe na ci ay misaal benn bis daa dañoo am ñu ma àndal ci tukki ñu rey benn xar amuñu luñ ko toggee gaa yi dugg ci àll bi kiy indi benn bant kiy indi benn matt kiy indi benn car yàggul dara rek ab jal toog ñu taal ko lakk ca seenum xar yonent bi alayhi salaam nag mu ne maa ngi leen di moytuloo xeeb ay bàkkaar gis nga nit ki nii lay nekk di xeeb ay bakkaaram ba bakkaaree buñ dajee ci moom far ko lakk ci sawara ko ñun mbokk lépp loo xam ne daal mooy yàlla la bul xoolati ndax lii lu woyef laak lu ndaw laak leneen waaye xoolal yàlla mi nga xam ne moom ngay moy loolu it ku ne da cee war a bàyyi xel amma mbokk la mujj ci li nga xamee ni nii moom la ñuy yoral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy allah yubad allah illa bima shara'a ala lisaani nabiyihi mooy kenn du jaamoo yàlla lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale foofu nag mbokk fala jullit ñi bare bare tarxiise te mooy jullit ñi bari gëm nañ yàlla topp nañ alxuraan topp nañ sunna waaye nag xeet nañ ko dolli ci ay yeneen mbir yoo xam ne yàlla digluwu ko ci suñu borom waxoon nañu ne am lahum shurakaa'u shara'u lahum min ad-diin maa lam ya'zan bihi llah ndax dañoo am ay bokkaalekat yu leen di tëralil ci diine ji loo xam ne yàlla joxewu ci ndigal su ko defee gaa yi ne waaw ñii di bañ biddaa ah moo ne de ñoom ña ngay takki montar soo demee seeni jàkka ay moket a fa nekk soo demee am nay haut-parleur te loolu lépp yonent bi xamu ko woon waaye ay yow mbokk julit su dee ne yow mi nga xam ne xam nga par par loo tax ngay wax waxuma ak yow waaye yow mi xamul maa ngi lay xamal ne suñu borom daan ne am lahum shurakaa'u shara'u lahum min ad-diin yàlla lim bañ mooy ki sos ci diineem ju lu bees waaye bañul loo xam ne dañ koy dimbine koo ci wàllu àdduna mbokk montar bi jaamuwuñ ko daf ñuy xamal fan la waxtu fan la jaamu yàlla gi tolloo ci waxtu julli jot haut-parleur bi day jottali ña nga xam ne nii dégguñu noddug bilaal wala noddug imaam mokket yooyee dafa yombal jaamu yàlla yi la nga xamee ne nii mooy seenug jaamu comme na nga xamee ne jamono yonent bi alei salaam ña daan taal ay làmp ca jàkka janam leen daan ñaanale amma nag nga créer ay sikar yoo xam ne moom jaamu yàlla la ne lii day day jegeel yàlla ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom xamu ko woon créer ay daje ne lii jaamu yàlla la ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamu ko woon mbokk loolu ku ko def indi nga ak dooral benn jaamu yàlla googu nga yokk ñaar moo mën a am yonent bi de xamoon na ko waaye nag waxu ko woon ay saabaam mbokk kon lañ ña yonent bi mottali na amut matal na amul wala boog nga ne ah kay lu baax la waaye nag yonent bi moom xamu ko woon su boobaa it indi nga mbir mu gën a garaaw ci mbir looloo tax ba mbokk nañu xam ne diine yàlla mooy bu ñu jaamoo yàlla lu dul loo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom kese kese moo ko tëral mu wax ci ay xadis yu yu dul jeex bokk na ca man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd képp koo xam ne yaa ngi jëf ak jëf bu jëm ci jaamu yàlla waxul ak maçon ya waxul ak menuisier waxul ak informaticien ya ma ngay wax ak képp ku créé façon jaamu yàlla ci sama diine ji ku mel noonu day yàlla dala koy delloo misaali ngi nii ñetti ci ay sahaaba wala ci wala boog mbooloom sahaaba ñëw nañ ci yaayu Aïcha radiyallahu anha ne ko ay suñu yaay dañoo bëggoon nga xamal ñu yeninti yàlla bi moom ah naka la doon jaamoo yàlla ci këram Aïcha détaillé leen nan daan nekk ci kër gi ñu ne ah waa ñun de foogoon nañ lépp loolu waaye nag ñu ne ah kii kat yëmul ak ñun ndax moom yàlla da koo baal mboole mi bàkkaaram am ci ñoom ku ne man day bis ni ki tey danaa décider dootuma dog bëccëg damay dëkke koor ba ba may dajeeg sama borom keneen ki ne man bis ni ki tey danaa sacrifier samay nelaw dootuma nelaw guddi damay fanaane naafila ba ba may dajeeg sama borom am kenn ci ñoom ne man day bis ni ki tey danaa jaamoo yàlla dëdd soxna yi dootuma ànd ak benn soxna ba baa may dajeeg suñu borom waaw gaa yi ndax lii ñu def mënuñu koo def lu baax mën nañu ko tudd lu baax ndax dëkkee koor mënoo jàpp ne baax na ndax dëkkee naafile mënoo jàpp ne baax na ki nga xam ne yàlla dong nga tax mu gedd ay soxnaam ndax mënoo jàpp ne baax na waaye nañu xool bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ba Aïcha daal di koy nettali mbir mi ndax daa woo gaa yooyu wax ak ñoom ci kër ga déedéet daa xam ne li dal ñii dana dal ñeneen ci xeetam mu taxaw ca kaw minbar ba ay yéen mbooloo mi dégg naa ci yéen ñu naan dootuñu nelaw guddi dañuy fanaani naafila dégg naa ci yéen ñu naan dañuy dëkke koor dégg naa ci yéen ñu naan dootuñu jege seeni soxna ah man yonent yàlla bi day maa leen gën a xam yàlla maa leen gën a xam yàlla maa leen gën a ragal yàlla waaye man day damay woor tey am ay bis yoo xam ne duma ko woor danay naafila guddi ca it danay nelaw samay soxna damay ànd ak ñoom sama sunna ku ko xeeb bokkoo ci ñun ku xeeb sama sunna bokkoo ci man mbokkoo sahabatul kiram bis na ki keroog lañ bàyyi di xalaat lenn ci diine di ko jaamoo yàlla lépp lu ñuy jaamoo yàlla rek dañ koo déggee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam reye ko waaw ndax yàlla nee nañu in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee jub yéen ñépp àjjana ngeen jëm su ngeen ma toppee awaay gaa yi ndax am nañ leneen lu ñuy sàkku lu raw ngërëmal yàlla ak àjjana ci suñu borom nee na bu leen sonal seen bopp topp leen yonent yàlla bi rek looloo tax mbokk jullit ngallawaay bul wàññi bul yokk bul jekk-jekkal la nga xam ne muy sunna jàng ko jëfee ko nanga ko jànge insha allah maa lay garantil ni bu àndeeg sellal da nga ànd ak yonente bi bokk ca ñay tabbi aljanna mbokk julit dafa mel ni def nañ ci keppaar gi trente minutes xam naa kon dañuy yemindi fii ñaan yàlla subhanahu wa taala dajalewaat ñi fi ëllëgi ki jàmm ñu dajawaat ci beneen thème boo xam ne nii dana aju ca la nga xam ne nii mooy suñu wàllu diini di ñaan jiitu loolu yal na yàlla defal ñu jàmm yal na yàlla defal ñu aafiya mbas mi tax feebar bi tax ba ñuy daje ci keppaaru weeru koor gi ca waroon a daje ca biir jàkka ji di tafsir yal na ko yàlla subhanahu wa taala tegg ci jàmm mboolem ña ca faatu ci ay julit yal na yàlla defal leen ajjana muy nekk seen wàccuwaay mboolem ña ca feebar yal na yàlla yëkkati leen ñam ca dalagul yal na yàlla fegal leen ko ña ca ñàkk ay liggéey ak i jafe-jafe yal na yàlla wuutalal leen lu gën mbokk julit kon incha allah bu subaak jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu